ambiance amul dara amul ku nekk seen koñ wu yaay yooyu xanaa nga woo ko ci suuf dafa sawaay kii félicitation amul. ñoom rupture la ñu woote. waa kay ñee nag daf ñoon rupture yi ñoom ñoom dañu doon ñëw di la ambiance am 48 jours am na ko xam ne dafa ne alhamdulilah rabbil alamin sant naa yàlla moom doo tax wax ko waa Thiès la. tekki naa ba xaw la dëkk waa tekki naa am na ko wax léegi nag man li ma jàpp daal mooy appel à la candidature bii nii dañ ko war a wàccee ba ci ministère yi. mais appel amagul de. ah si am na. am na non ñun soxla ñu appel à la candidature sa waay xoolal dama ne lu ko neex na def ñun soxla ñu appel à la candidature xam ñu soxla des gens compétents ñoo xam ne mën nañu dem tous les bords Sonko lu ko def. bu ah. ko neexee moom kese mu nekk gub moom kese président sa doy nañu. appel à la candidature bu ko nee sax mu teg ko à côté. Eh. bëgg nañu. dëggal taan moom daal na na doxal rek. nañu doxal te gars yi ñu doxal li ma leen wax nii ci kanam dana leer fii laa toogoon di leen ko wax. ñii dañuy toog ba deux mille quarante. mais ma jàmbal yëg nga ni dañoo. gisul dara bloqué ah déet. waaw. dañu <laughs> fay mais déggoo ñun la ma jàmbal euh, groupe bi dafa am ñoo xamante ni ay père de famille lañu ak tabaski. waaye yow tamit waaye yow tamit sa waay tamit père de famille ak mais yow ma ma de famille man dafa ah. ma nekk dañoo fa jële ah est-ce que ñu ko doon def noonu xalaatoon nañu ne kii père de famille la affaire de père famille dañuy jël teg ko nële dama ne. ñoom ci seen bopp nañu dem attaqué waa ji ne ko comme que yaa ci gilaawaay ba ñu génne ci fexe ci gilaawaay bi ñu génne ci nekk mais bor moom dañ koy fay dañ koy fay ba mu saf sàpp amul ay état dafa war a jàppale ay groupe de presse bu ko jàppale ku ko jàppalewul dama ne ñëpp la ñu fay impôt bu dee impo la nañu fay bu dul impôt la leneen duñ ko toppee dañ ko fay au point très. yë yëg nga ni Ba Ba Jaxate ak Imam Ndaw waaw euh, jàll na seen ñoom ñaar dañ xeex. ah <laughs> lu leen di boole waxoon waxuma ko saa ne ko yaa ma ko waxoon ci yow laa ko déggee kii na ko déggee ko ci man nañ bokk sël bu ñu geesoo di sëñ bi ñaaw waaye ñoom tabaski wàcc na leen ñoom. doo Doora Gueye tamit. ah Doora kat Doora sa xarit la wote. Ah, Doora kay xam nga moom Doora moo defoon xippil xool mooy mouvement boobu waaw. xippil xippi rek xool ah ah xippi xool li fi Macky def moom la mu maam tuddoon. Ah. léegi nga xippi xool li ko Macky teg bu fekkee moom dafa jàpp ne Macky moo ko teg mu ngi noonu lii moo lay wan ne gars yi caaxaanu dañ nekk di jubal. Hmm? caaxaanu tey ca gars yi lu leer nañu téye loo xam ne dañ koo téye ci lu leer nañu bés bu doxee rek xam nga lu may ñaan ko bu bañ a waxat lay doxal. da da ngaa bëgg a dem xanaa. ah gis ngay jug di. déedéet vitamine C la. <laughs> gis est soxla nga ko. waaw vitamine C. yow soxla nga vitamine C. voilà dama bëgg renforcer vitamine C. c'est ça bu doon. <laughs> parce que Matulaay jàppaleen na réew mii. fii ñu toog nii wallaay asim dina dox. parce que ay kilifa ñoo ko wax man dama ne damay jàpp nit ndax kilifa ay kilifa ñoo ko wax te kilifa yooyu dafa fu ñu ko teg nañu bàyyi li gars yi doxal. danañ de. billaay dinañ doxal. Ah. mais impôt moom ko fay par la force. Adama sarax. te kenn ci seet ay père de famille ak mère de famille <laughs> parce que kër gu nekk am nga père de famille. Adama am nga droit sarax ju tamit. mu indiwaat impôt bi. xam naa ne appel à par la force. Ah, appel à candidature bu amoon xam naa ne dina dugal pour dem impôt. fay impôt de. <laughs> alors sponsor dañuy <laughs> ah, euh, mu euh, dugg na. Hmm. bu dul loolu sax dama ne dañuy fay impôt par la force amul yërmande. waaw dégg nañ la naana naana sa vitamine C. wala nga est ce que ko këpp passe ma ko. voilà naana ñu ñëw ci sëriñ un peu. ci wala nga may ma ko parce que man mii may nelaw nii. te te mooy quotidien Mantu. ak 2024 au lieu de Jamra <coughs> les Houdiates ont lapidé Air Sénégal bu mel ni boobu ak léegi itam coow li xaw na bëri loolu ci wàllum aj euh, geeg Houdiates euh, yi. waaw mais ak lu si coow li bëri bëri bëri il faut reconnaître que quand même y a des avancées. Mhm. significatives yoo xamante ni le régime actuel mi ngi mi ngi koy def. parce que le premier ministre Ousmane Sonko def na réunion interministérielle avec tous les secteurs concernés ci loo xamante ni dafay ñeel uniquement wàllum aj ji ba wax ni moom mbir mi daf ko def yëfu boppam donc jël ci am ci un engagement total ba sax instruire le ministre bi nga xamante ni tey mooy El Hadj Mari na ñu fexe ba jox ko ay garantie yoo xamante ni aj gi dina mën a jaar yoon te dégg naa jàpp naa ni démb déglu ngeen El Hadj Mari ci euh, déclaration bi nga xamante ni def na ko véritablement dégagé na aussi ça reste oui El Malick mhm, euh, voilà parce que lu tax ma ni il y des avancées significatives parce que près onze vols la ñu prévoir mu dem mm. te jàpp naa ni neuf vols yëpp véritablement dem nañ mm. te amul benn problème lépp tegu na ci yoon mm-hmm. loolu nag c'est des efforts yoo xamante ni bu ñuy wax itam di xarab nañu situer également wax ni def nañ ay efforts itam quand la responsabilité incombe aujourd'hui au air kii euh, avion bi nu mu tuddati sax. Air Sénégal Air Sénégal. ñoom la imputé responsabilité bi. parce que ñoom ñoo jox gouvernement bi gage ni ko lépp baax na lépp jaan na. waaw mais bi ñu demee ba ca biir ci lañ gëstu xam ni Air Sénégal ndekete la mu leen waxoon. dara amu ci am dara amu ci. am na loo xamante ni véritablement mooy li muy wax naan bët du yenu mais. xam na lu bopp attan. Mm-hmm. loolu élagement Hadj Malick Ndiaye wax na ko. en tout cas jàpp naa ni. Mm-hmm. jàpp naa ni régime bi. Mm-hmm. il faut que mooy li nga xam ni que nit ñi ñu ngi koy wax muy temps de grâce. lu ñu leen war a may la. parce que xamul da fi ñu fekk réew mi. dañoo donn un Sénégal avec un couteau à la gorge Sénégal bu metti bu mmh. jafe-jafe. Mmh. tey ñaata bor la président Macky Sall bàyyi. bëri na quinze mille milliards. Mmh. te suñu PIB li ñuy am par at. ci dix-sept mille milliards la toll. boo xoolee maanaam boo defee comparaison bi. da ngay xam ne ñun dépassé nañ sax la norme communautaire. bi nga xamante ne tey fa la plafonné woon muy les 70 pour cent. Oh, am na ñoo xam souvent si plateau yi dañuy wax ni bor du dara parce que États-Unis mooy le pays le plus endetté au monde mais di nga comparer États-Unis ak Sénégal. mais am na lu mu ko mën a fay aussi. mais États-Unis foofu laa doon ñëw. yow réew mu ndóol. Mhm. réew moo xam say capacité d'épargne sont tellement faibles. dëgg la nga dem ba échelonné eggale tey sa taux d'endettement ci pourcentage bu toll foofu. Mhm. moo tax tey taux d'endettement boobu dafa am njeexital ci finance publique parce que chaque mois il nous faut combien de milliards pour payer de dettes cent quatre milliards. la masse salariale waxatuñ ko. moo tax tey ñii dafa nekk exigence ci ñoom. ñu goxi li nga xamante ni dafa am ay nit yu ko jël te moomuñu ko. ñu jël ko def ko ci gafa gi nga xamante ni war na participer pour réduire le train de vie des Sénégalais. alors man man une question. par rapport ak euh, ci finance publique. oui parce que dañuy dégg ñuy wax ni le report de crédit est interdit. oui est-ce que loolu c'est maintenu jusqu'à jusqu'à euh, ba léegi nii ñu ngi koy maintenir parce que maanaam. Mhm. bu ñu la denkee alal nga jox la ministère jox la budget amoo droit delloo la des ca budget ba loolu laa doon dégg ba xam am na. non man loolu man mosuma ko yëg de. Ah, ah, moom lay laaj kon da nga koy yóbbaale. léegi léegi dama dama déggoon ñu ni budget bi nga xamante ne dañ la koy jox da ko hmm. war a dépenser ba mu jeex. da ko war a dépenser ba mu jeex waaw loolu loolu doon naa ko dégg waaw waaw doon naa dégg loolu mhm. mais bu fekkee ni am na lu fi des parce que l'État c'est une continuité parce que raison pour laquelle tey gars bi ñu demee FMI di wax dañ leen proposer ñu maintenir le plan Sénégal émergent mhm. entre temps aussi ñoom projet bi nga xamante ni moom la ñuy tëgg véritablement mën a pare mais en tout cas si logique bi ma nekkoon mhm. il faut que les Sénégalais comprennent nou sommes dans un contexte très difficile. bu mm-hmm. fi président Macky Sall bàyyi. te président Macky ku ne xam na ni bi muy dem tamit aussi barina na sabotage yu mu def. yu bari. Mm-hmm. bari na ay nomination yu mu def yokk la masse salariale jël ay décret waaw mm-hmm. mel ni dafa bëggoon a mettre véritablement ki koy remplacer dans une situation inconfortable pour que bu mu mën a liggéey. ba ci loolu nag gis nga dafa commencé di am ay njeexital. dafa commencé di am ay njeexital te li euh, doyen wax ànd naa jàpp naa ni. gars yi volonté bi ñu amoon wala initiative bi ñu am pour liggéey. Mhm. ñu ngi ci volonté boobu. am solo parce que Ousmane Sonko quoi qu'on puisse dire aussi. Mhm. jàpp naa ni c'est un homme bu nga xamante ni du caaxaan. effectivement loolu jàpp naa man. non man comparaison bi mu def sànq mu neex. dañuy comparer Sénégal ak États-Unis nga ne dans un pays sous-développé bu mel ni ñu ndóol gi ñu ndóol. mais dañu ndóol bu pare euh, boole si kañ lekk budget ba. mais États-Unis am nañu pays développé la mais dañuy liggéey loo xamante ne dëkk bi da koy gisaat donc euh, du du du du du benn. effectivement non non non. Euh, euh, Alaaji Modou. <coughs> waaw comme ni nga ko waxee dañuy dañuy dañuy rafetluwaat li nga xamante ni moom moo nekk comme ni nga ko waxee avancé yi nga xam ne gis nañ ko gouvernement bi def ko jëm ci li nga xamante ni. ma dama bëggoon a xaw a insister tuuti moom mooy Air Sénégal parce que aussi yaakaar naa ne. fan at yi ñu génn sax laay wax. tur yi li muy ñëwaat bëri na trop trop trop dans l' actualité sénégalaise. ñu ci hmm. mu néewul sax ci côté positif chaque jour ay ay erreur la ñu ñëw gis nañu classe bi nga xam ne amoon nañ ko ñuy wax ay enquêtes yoo xam ne aboutiratuñ gisoon nañu problème yi nga xam ne amoon nañ ko ci jamono président de la république Macky Sall mu ñëwaat encore répété waat ci pèlerinage yi man jàpp naa ne ñoom autorités yi fi nekk. comme ni ko El Malick Ndiaye que nee nañu danañ cité les responsabilités te sanctions yi ci nañ ko def jàpp naa ne li nga xamante ni ne moom mooy enquête bi sérieux dañ ko war a def ci Air Sénégal ñu xool sooxe gi fan la. en réalité les responsabilités. waaw parce que aussi neexul neexul Sénégal neexul di dégg quoi des plaintes yoo xamante ni def nañu soixante douze heures ci ci ci benn hôtel mënuñoo fexe ba ba aji. bien vrai que ñoom autorités yi am na yenn pas yoo xam ne def nañ ko mais juste parce que Air Sénégal am na yenn jafe-jafe yoo xamante ni am na ko jàpp naa ne loolu aussi ñoom war nañ ko mën a xool li nga xamante ni moom moo war daan boo xamante ni aussi war nañ ko mën a yëkkati ñu teg ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy daal di euh, def ba problème yooyu que aussi nekkul loo xamante dañ ko war di muy mm-hmm. na solo alors euh, El Hadj Bilal mi ngi doon. waaw man gis nga aj bi moom day na waar. gis nga Màkka. Mm-hmm. dañ ko man dem naa Màkka. Mm-hmm. kon am naa expérience. effectivement. Euh, dem benn yoon tax ma xam lu bari màkk bi dañ ko war a jël dénk ko ay nit état jël responsabilité dégagé ko air Sénégal bii nga xam ne ñun benn ponk avion lañu am boo xam ne du ko sababee mais la ca la waaye xam doy na dañoo war a jël jël euh, def appel d'offre woo ay dëkk yoo xam ne àttan nañ ko waaye waaye Gambie gii Gambie gii dañuy dem ba ñëw doo dégg coow Mauritanie gii dañuy dem ba ñëw doo dégg coow mais suñu yaay yi nga xam ne wax dëgg yàlla mais nag kaay xamal benn affaire. Mm-hmm. air Sénégal nag dañu jéggulu parce que Makka teel a dem teel a pare sa aj la dem Médine wàcc def say farata toog xaar ñeneen ñu ñëw mais actuellement nii bu fekkee ba léegi am na toog bu ñu demee xam nga Makka ñaar euh, euh, Médine benn fan lañ fi def war a ñaari fan soog a ak lay te boobu da ngay bëgg teel a dem visiter jënd li ngay jënd doxantu def say yenn euh, mbir yi mais boo yéexee dem rek wax dëgg yàlla day mel na sa aj dafa parce que am na ñoo xam ne des Médine sax moo leen gën fekki Màkka ndax fa la yonent bi tëdd sallallahu alayhi wa ndax fa ngay njëkkee dem Màkka après soo soo départ hmm. kon bu ñu la xañee Médine bi rek xañ na lu bëri hmm. dañu war a jël lii nga xam ne euh, euh, kii mu tudd euh, dem Màkka bi dénk ko ay privé ay privé yoo xam ne la xam nañ leen bu baax saytu leen ñii moom seen yoon nekku ci ñoom Sonko seen ci problème Màkka bi parce que problème Màkka bi trois mois avant te ñu bi ñu toogee na fi am <laughs> waaw non mais yàgg na fi am sax du yàgg na fi am mais ñoom